non non xam nga booba mbir mi dafa doon doog am. bu mhm. muy doog a am dëgg euh, du toon rafet daal ñin ñi nga xam ne ñoo seq te wujjante ak moom muy ñu koy ñu ci wax loolu du doon rafet. Mhm. parce que mbir tamit buy doog a am lu mel noonu. li gën mooy ñu rafet ñooy ñu bàyyi enquête bi leer ba ñu dem justice.